asalaamaaleykum wa rahmatulah wa ñu ngi lay nuyu Moro ñu ngi nuyu waa réew mi FM ñu ngi nuyu kilifa gi fii ci ci ci ci dëkk bi ci réew mi et ñu ngi nuyu waa mouvement nitu dëgg di nuyu senegale yi ñuy déglu yëpp. kilifa gi si dëkk bi kan la. <laughs> kilifa gi mooy Mbagnick Ndiaye fii. ci dëkk bi ci réew mi fi Mbagnick Diop ah pour man euh, Macky Sall ngay nuyu. non Macky ah. Sall ma ko nuyu. kilifa dëkk gi kay c'est le président Macky Sall. wala ci réew mi fii réew bi. mais doo ko ziar kilifa réew mi c'est c'est c'est c'est Macky. Macky ko ziar. <laughs> kon en tout cas ñu ngi koy euh, ziar bu baax di ko remercier euh, ci disponibilité laaj bu njëkk lan moo tax euh, temps yi daal déggatuñ lu bari mouvement nitu dëgg lan moo ko waral. ma loolu question bu am solo la maa ngi nuyuwaat aussi waa mouvement nitu dëgg ñun suñu mouvement bi dafa xaw spécial par rapport ak yeneen mouvement activistes yi. Mhm. parce que ñun activisme. Mm-hmm. Euh, autoproclamation la ñu def activisme. Mm-hmm. mais defuñu ko liggéey dañu jàpp ni nécessité la ci ndigale yàlla yi sax la bokk. Mm-hmm. parce que yàlla dafa wax fa zakri na fa qari siqra maanaam dimbalante leen ci ci ci xalaat bu rafet ci xam-xam ci nangam ak nangam mais aussi yàlla am na leneen ak leneen lum sas doomu aadama. sas na doomu aadama mu góor góorgóorlu indi lu mu jox njabootam. sant na ko mu góorgóorlu dem liggéeyi am lu mu suturloo boppam donc kon ñun mouvement nitu dëgg activisme kese du suñu activité mhm. dañuy am ay activité professionnelle am ay activité sociale am ay activité familiale ak na ñooy sànni xeer de xanaa dangaa bëgg am dafa am ñoo bëgg non je voulais dire mooy seen liggéey maanaam lu activisme moo leen di dundal ainsi de suite loolu am na am na comme politique ñan la activisme di non du ay tour mais comme politique fii Sénégal mm. ni ko ay nit jëlee def ko profession mm-hmm. di ci xëy di ci gont di ci jëlee lu ñu am. Mhm. noonu la nit ñi jëlee activisme tamit di ci di ci xëy di ci gont di jëlee lu ñu am. Mhm. te pourtant ñun activistes yi ñun ñoo doon xas politiciens yi nga xam ne nii ils s'étaient professionnalisés. Mhm. par rapport ak politique bi ñuy def alors que politique warul woon demee noonu. comprendre nga donc comme tey su ay activistes yi ñëwee tamit ñu jor taxawaay boobu nga xam ni suba guddi bëccëg ñu ngi ci activisme bi. Ah, ñun tamit dañuy wax ak ñoom ni leen c'est comme ça. parce que. day ça ternit mais nag foog nga wax ñu ñaar wala ñetti activiste yoo xam ne activisme moo leen di dundal soxlawuñu xëy di liggéey di dóor waar pour am euh, dépense bu ñu yóbbu kër ga maanaam lépp dañ ko wekk ci activisme rek. non loolu loolu day yàq débat bi. day eh, su ma ko personnaliser rek. day yàq débat bi mais ay analyse ay analyse globale la dama lu ma la <laughs> xamee si digg bi ngay jaar. non day yàq ah. débat bi baal mu sedd amul mm. benn problème. mais mais li am solo daal mooy. mais daal bëri na ñuy dundee activité. trop bëri na trop li am solo daal ci wax ji mooy. ñun mm. mouvement Nittu Dëgg suñu bëggoon chaque jour ñuy gis di ñu dégg ñun dinañ ko am. mais loolu lan moo war a tekk tekkaaral bi. non defuñ tekk tekkaaral de. Mm. comme yow da nga jé da nga jékki-jékki woo ma. maanaam sentiratuma mouvement nitu dëgg. non pourtant ñun ñu ngi suñu non ñu ngi suñuy activité ñu ngi doxal normal. Mm-hmm. mais dafa am yoo xamante ni ni génn nañ ci surtout combat yi nga xam ni dafa am ay quatre-vingt-dix pour cent de politique ñun dañ ciy rocceeku. maanaam combat yi nga xam ne da ngay jaxasoog opposition bi daf si yóbbaale activiste yu bëri. merci waa mouvement Nitub Dëgg moom génn nañ si. waaw combat yi nga xam ne dañuy jaxasoo ak yi di leen xeexal pour jëlee fi politiciens yi la installé waat fi même politiciens yi ñun combat yooyu dañ ciy rocceeku. comme comme yenn genre combat. combat nga expliqué ñu lan nga bëgg wax exactement. non pratiquement combat yooyu mooy mooy combat yi fi ëpp quoi. mooy combat yi fi ëpp yi gars yi activistes yi di mener parce que activistes yi yëpp sont devenus des opposants ñun on est des opposants contre le troisième mandat wala yan waa yooyu si la bokk ñun on est contre le troisième mandat mais ça ne signifie pas que. mais su ngeen koy def du ngeen si ànd ak politicien. du yomb de en tout cas ñun on mm. écarte les collaborations avec les politiciens qu'ils soient les opposants qu'ils soient les agents du pouvoir. Mm-hmm. parce que doyloowuñu leen. te dañoo bëgg ñun suñu credo dañoo wax ni on ne fréquente pas n'importe qui. Mm-hmm. te nit suñu la doyloowul rek suñu xoolee ba xam ne yow daal say doxalin neexuñu ñu xool say précédent gis ay mbir yoo doxal pour ñu éviter ëllëg ñu am ay déception suñu collaboration dañuy écarté wu. am nañ ci ay ay ay yu bëri yoo xam ne ni on l'a vécu mhm. parce xëy ñu rek écarter toutes les collaborations avec les politiciens xëy ñu rek bi ñu fiy def sommet non à la francophonie sommet non à la francophonie boobu ay politiciens la àndaloon. Mhm. am na ay politiciens yu ñu ci àndaloon yu bëri parce boobu c'était les débuts du du du mouvement ni dëgg. Mhm. am na ay yeneen activités yoo xam tamit ànd nañ ci ak ay politiciens mais da ngay dem ba si objectif bi la tax a jóg nga dem ci combat bi bokkul ak objectif bi bi tax a jóg kële. Mhm. te politiciens yi. maanaam ku ngeen di bañ. ku ñu utiliser la ñuy bañ bañ euh, yi utiliser leen. ñu utiliser ñu image ba pare wan leen ginnaaw. ok te beneen bi mooy utilisation bi xam nga lu si garaaw. Mhm. man su ma bëggee utiliser sax man na ma bañ a utiliser. Mhm. mais sama image lay utiliser pour ki nga xam ni doyloo naa ko. doyloo na ma ki nga xam ni waaw ok pour jot si kooku noonu parce que kooku noonu du am la capacité de discernement. pour xam réellement image bi Omar Sarr di refléter est-ce que bokk na ak politicien bi tey mu ànd ak euh, mu ànd ak moom euh, affiché wu. mais mais xanaa yow instant bi euh, Ousmane Sonko ngay sànni xeer parce que Ousmane Sonko dañoo gis ni moo nekk opposant boo xam ne pratiquement man sax. j'ai l'impression activiste bu ma invité fii rek il pour Ousmane Sonko activiste bu ma invité fii comme yow ni ma lay invité mhm. su waxee rek danga naan il pour Ousmane Sonko noonu la demee woon ci cas Guy Marius Sagna au début sax da doon bañ ba léegi nangu na mhm. est-ce que nekkul ni yow kon Ousmane Sonko ngay wax ni euh, souvent dafay utiliser activiste yi pour jot si nguur gi la waxoo Ousmane Sonko non pas exactement Ousmane Sonko mais mhm. si la bokk si la bokk mooy euh, Ousmane Sonko man naa ni sax moom balaa muy politique activiste la woon ko mhm. je me rappelle je me première réunion bi ñu toogee euh, coalition nous aux APE ba Ousmane Sonko def benn article ci journaux yi pour wax ni on doit combattre les APE. fekk ñun ñoom Guy Marius Sagna et cetera et cetera. Mhm. ñoom Fatima Mbeng ñun ñoo tegoon coalition ñoom ñoo ko bàyyi Diouf ñoo tegoon coalition nous e. article bi Guy Marius Sagna daf ko indi mu ni voilà un politicien qui soutient le combat contre les APR il s'appelle Ousmane Sonko. Mm -hmm. boobu nag fekkoon na ñun xam nañ Ousmane Sonko depuis bi ñu créé collectif non à l'homosexualité mhm. avec euh, à travers un certain Baro boo xam ne dafa bokkoon ci mhm. ci ci ñi ko créé mais Sonko chance bi mu am mooy mhm. dafa dugg ci politique bi récupérer le discours des activistes te discours boobu la sénégalais yi soxla woon parce que discours de rupture boobu activistes yi ñoom ñoo ko porté woon moom nag il a eu l'intelligence de récupérer ce discours mu véhiculer ko dugal ko dans l'espace politique Mm-hmm. donc il fallait que activistes yi rejoindre comment ça. je suis waaw je suis bien d' en compte. Euh, sans pour autant ma d' mooy. Mm. da nga koy rejoindre am sa ay yenn principe yoo xam ni da nga koy da koy da nga koy gelé. Mm-hmm. parce que su yow soo nekkee activiste da nga war a nekk impartial. Mm-hmm. da nga war a nekk koo xamante ni nii doo am sens interdit si ki nga war a wax dëgg. ci ki nga war a wax ni doxalin bii nii la doxalin bi nali la alors que ça n'existe pas dans les parti politiques dans les parti politiques il y a un il y chef boo xam ni moom mooy décider mooy décider waaw su defee erreur kenn du ko ko wax gis nañ Sonko sax à un moment donné am na ko duggoon si groupe WhatsApp bi wax loo xam ne neexu ko mu génne ko si groupe bi. ah bien euh, mu génn def déclaration ne waaw moo wax loo xam ni neexu ma ma retiré ko si groupe euh, euh, WhatsApp bi ñu voit que ñu gis ni ça pose problème mel ni ñun dañu bëgg démocratie opposants yi dañuy woote démocratie te déjà ñoom seen parti si boppam amul sax démocratie amul liberté d'expression. loolu mooy réalité bi parce que politiciens yi. su ñu amee chef bi. Mhm. li tax ñoom duñu ñu d'accord ni nit war na nekk suñu biir di critiquer parce que dañu jàpp ni le fait que chef bi def erreur nga critiquer ko. Mhm. yeneen nit dañuy gis erreur bi. te bëgguñu nit yooyu nga xam ni éventuellement war nañ nekk ay électeurs war nañ nekk yu ñëw votel ko ñu gis ci moom ay erreur dañuy bëgg qu'il soit une personne parfaite mhm. loolu mooy de l'hypocrisie dans le système politique maanaam yow sa chef bi ngay àndal da nga koy nëbbal lépp luy erreur am léegi nag danger bi xam nga mooy lan. Mhm. noonu nga koy nëbbalee di ko pousse di ko pousse ba mu nekk président. Mhm. nekk un super puissant. Mhm. après nag erreur yooyu nag day commencé di feeñ te yow ñëwee doo doo ko ñemee. corriger doo doo ko ñemee corriger. ok moo tax moo tax li ñuy tuddee formation politique moo existé wul au Sénégal. wala boog suñu nee formation politique c' est chef qui est le et c' est chef qui est le moom mooy moom mooy le demi ko former. kenn du ko corriger moom na def benn live. Mhm. mu génn di xas waa fa waa Pastef. di leen euh, kii euh, la au lendemain des des des législatives kii des élections municipales. da leen doon xas. muy leen yéen ni ma gisee seen comportement yi nii yéen sax waa APR moo leen tane parce que ñi ma gis ci yéen nii nii gis naa ay nit si yéen yoo xam ni yéen nu ngeen def ba falu ba am ay ndombal tànk ndekete loolu kese moo leen intéressé ndekete projet Pastef bi intéressé wu leen. Mm. loolu critique yu objectif la yu am solo yoo xam ni ça doit être répété ba pare nit ñi dañ ci war di jàng pour di defaru parce que ñun nitu dëgg am na suñu benn philosophie bu tudd fóot raxasaale say loxo. Mhm. parce que nul n'est parfait donc kon man man naw naa ko ci loolu. Mhm. mais nag ñi ànd ak moom. Mhm. lan moo tax ñoom mënuñu créer réciprocité boobu. Mhm. taxaw tey su Sonko defee lu mu warul def ñu waxoo ko wala mhm. Sonko moom du def lu mu warul def mu communiqué baaxul mu c'est ça léegi nag loolu moo tax ñu nitu dëgg ñun nag dañoo amul sens interdit sama gaa yi dañoo dee ay ñoom Cheikh Fall ay ñoom Khadim Lo ñoom Ibrahima Touré ñoom sàmba Sow ñoom dañu lay wax dëgg bi koo mën a doon. ñoom seen seen référence yëpp lan la soo waxee li ngay wax dañuy xool lan la diine wax rek ñu indi su fekkee li nga wax àndul ak li diine wax parce que diine mooy dëgg. su àndul ak ñu la àndul lii day dégager kon ñun ñooñu ñun xajuñu ci benn parti politique suñu demee dañu leen di yàqal. yéen daal mënoo leen ànd ak Sonko. duñu ànd ak benn. gëm naa ni du ñu ànd ak benn politicien. mais naka gisee phénomène yi euh, phénomène euh, ñi ñu wooye ay influenceur influenceuse si euh, si si internet bi si Facebook bi si YouTube bi euh, surtout ay ay ay ay yoo xam ne euh, peut-être ñu ngi bitim réew on a vu le cas Kali Kali Californie waa gis nañ fi yeneen cas cas ay Rami yi ñoo xam ne dañuy nekk si internet bi di saaga ba saaga yooyu tey jii sax tax ñu yegg si benn level bi Euh, ban jàngat nga si am. ok loolu des deux côtés. Mm-hmm. politiciens yi ñoom ñoo nourrir affaire boobu. Mm-hmm. ñoom ñoo ko dooleel te ñoom xam nañ ni ça de la médiocrité. des deux côtés mooy di côté des opposants opposants yi am nañ ay influenceurs yuy saaga. Mm-hmm. président bi am na influenceur buy saaga. mais responsabilité bi ci Macky Sall la gën a fooree. parce que Macky Sall institution la. moom mooy le père de la nation. moom su demee bay cautionner ay yenn yenn yenn. insanité yi rek mhm. ça devient tellement grave parce que l'opposant mën nañ ni euh, ñun joxaguñ ko benn responsabilité joxaguñ ko benn pouvoir mhm. mais Macky Sall bi ñu jox ay pouvoir dénk ko constitution il se il se dit qu'il est le gardien de la constitution te mhm. Sénégal wax dëgg fa yàlla même buñ ko bindul ci constitution bi sax éthique éthique ngor jom respect ak orma loolu ñun ci suñu constitution deret la nekk donc kon Macky Sall tey quand il s'affiche avec ay Khaliphone Sall avec Kouramati euh, y avait y avait y mhm. saaga woon olof yëpp ah et cetera et cetera donc day doy waar loolu c'est extraordinaire c'est extra catastrophique loolu sax jaroon nañu wàcce comme ni nga ko waxee sax dëgg la parce que maanaam mbir mi sax saaga yi si internet bi man damay wax ni état bi dafa commencé di si investir di ut ay activisme mhm. ñoo xam ne ñoo koy saagaal si internet bi ñoo koy defendre mais loolu dama ne euh, opposants yi sax ñoo ko daal di njëkkee ñoo njëkk a toog ci internet bi ne ko am benn audience bu mag a mag ñu leen di suivre ñuy critiquer la pouvoir gis nañu fi sax kaawu euh, comment dirais-je ki nekk Canada non pas Assane Diouf euh, Assane Diouf peut-être moo ubbi baal Mola Morgan gis nañ fi live yi mu doon def ci affaire wu Adji Sarr Sonko mhm. à un moment génn faral Sonko di wax di wax mais ana ñu koy gëm mais dem nañ ba xam ni sax kii li muy wax amul dëgg maanaam da mhm. doon wax lu ko neex mais ñu mhm. gis ni opposants yi ñoo njëkk a euh, ñoo njëkk a miine réseaux sociaux yi ci wàllum saaga ak wax lu bon ak ainsi de suite léegi nag euh, nguur gi ñëw fekk si leen si mbir moom moom tamit créer ay activistes ay euh, influenceurs am wala ay influenceuses am ñoo xam ne dañ koy tontul di ko saaga ci internet bi alors que na ma gis ni ñooñu pratiquement léegi ñoom la ñuy suivre seen live. Mhm. Euh, jeunes yi ñoom la ñuy suivre seen live on a vu euh, suñu naatango boobu ma Mati fal bi nekk tamit moom euh, à l'extérieur moom tamit waaw Mati Trois Pommes exactement moom tamit muy def ay live en faveur du pouvoir mhm. loolu ban jàng nga si am maanaam guerre bu doy moo am surtout si si Facebook bi loolu mooy li ma tiitloo mhm. ci lendemain ci ci ci ci ci lendemain wu réew bi quoi mhm. loolu moo ma tiitloo parce que ñi ñu xawar yaakaar tey ñu nekk opposant ni suba suñu ñëwee dinañ def rupture ñoom ak nguur gi fi nekk ñoo wokk même méthode yi ñuy def pour mm. jéem a conquérir la voix des sénégalais mm-hmm. loolu mooy li ma ci xaw a jaaxal je doon donne l'exemple de Assane Diouf mm-hmm. Assane Diouf toll na ay jamono li mu doon doog dugal ci ay saaga ndey fii mm. ci Sénégal mm-hmm. man nan laa mën a comprendre nit ku gëm dara quoi ku gëm dara ti tafish un jour avec Assane Diouf ngeen da ngeen di bokk combat. Mm-hmm. te pourtant am na ay activistes sax yoo xamante ni nii. Mm-hmm. dañuy bokk ak Assane Diouf combat. Mm-hmm. te pourtant ñoo activistes yooyu noonu nee nañ dañuy défendre les valeurs sénégalais. mooy la dignité le ngor le jom et cetera. ay politiciens yoo xam ne nii dañuy incarner valeur. di affiché ak Assane Diouf. fexe ba ñu tey Assane Diouf conseiller municipal un insulteur koo xam ne nii ci ay saaga lañ loolu te soo ko waxee rek. affaire bi indi polémique. Mm. mais loolu moo teguwul ci yoon gis nga nit su defee ay erreur dañ koy condamner dañ koy mettre en quarantaine dañ koy wax ne yow mënatoo de fii niveau bi mënatoo fi egg parce que lii ak lii ba pare loo xam ne nii mosoo baalu àq. souvent mën naa d' accord sax nit ku def erreur nga xëy benn jour nga baalu àq et mhm, tout mhm. loolu c' est le cas c' est le cas de Mola Morgan mhm. Mola Morgan du saay du saaga ndey mais souvent il donne des désinformations yoo xam ne ni du dëgg c' est de la manipulation te pourtant du ñu arrêté c' ça le problème pourtant am na nit su fekkee gor dëgg dëgg dëgg nga am na yenn conneries yoo xam ne nii soo ko defee ba ñu jàppale si tu dois arrêter tu dois disparaître nga dem nekk ci leneen mais tu parce que affaire bi ça ça ça se nourrit mhm. xaalis la dañ ciy business dañ ciy am dara dañ ciy am popularité pour xalaat peut-être président bi su ñëwee après mhm. euh, kii noonu la defoon euh, le gars là kii ki ànd ak Macky Sall Euh, j'oublie son nom te mu nekkoon Canada te mu xees nii. Euh, Ousmane Souleymane Jules Diop Souleymane Jules Diop noonu la defoon. Mm-hmm. bi Macky Sall faloo mu ñëw mu recevoir ko. maanaam ñoom ñëpp tamit am na lu ñuy xaar. ñoom ko faloo ñu ñëw ñu jox leen poste. merci am na c'est le même système am na si benn liveur boo xam ne bu nekk États-Unis xam lan la waxoon avant élection présidentielle mu ni fexe leen Sonko gagné parce que damaa bëgg ñëw Sénégal damaa bëgg gis ci samay njaboot. parce que boobu mu ngi taxaw foofu di saaga Macky Sall. Mhm. tant ma Macky mu ngi fi ñemewul ñëw Sénégal. Mhm. léegi kon il faut que Sonko ñëw pour moom mu ñëw Sénégal. waaw donc lépp lu dana ko def pour daaneel. Macky Sall mais loolu c'est extraordinaire. léegi nag léegi nag popularité bi Sénégal léegi nit ñi noonu la ñuy wutee. popularité ci médiocrité euh, ci ay saaga ci ay def ay yëf yu indigne ci fenal nit fenal nit sax pour siiw. te ñun nitu dëgg ñun on est un mouvement de valeur moo tax ñun nekkuñu ci njëkkante bi njëkkante siiw bi wala njëkkante génn télé bi wala njëkkante maa ëpp ñi may waaw wala njëkkante def combat benn combat benn affaire ñun souvent dañuy gis benn information boo xam ñun ñu koy étudier pour xool lii nan lañ ci war a waxee le lendemain rek ñu gis benn nit rek jóg dem wax si nekk si ñoo xam ne kee di wax ne ñun mënuñu ànd ci combat bi ñun nañ ko bàyyi mu mu mu eggale combat boobu mm-hmm. ñun ñu dem ci leneen parce que nekkuñu si njëkkante combat bi bay dugg ci ay mbir yoo xamante ni nii duñ ko maîtriser ëllëg muy wàññi suñu dignité wala mu mu ñuy mu moo tax ñun ñun chaque fois wañu bala ñuy dugg si combat dañ koy étudier je te donne exemple cas mm-hmm. Imam Ndaw avant ñu siy dugg mm-hmm. étudier dañ ko lu mat quinze jours di waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal yëpp waxtaan ak njaboot gi waxtaan ak avocat bi waxtaan ak ay ay ay anciens dignitaires au Sénégal ay ay ay professeur Bamba Ndiaye et cetera ba ñu am certitude que Imam Ndao bii dañ koo tooñ ñu doo a dugg ci combat bi kaaw kaaw homosexualité bi tamit noonu la demee hmm. yëpp même démocratie baaxul bii nga xam ni mooy suñu dernier combat bi ñu mujjee jël hmm. avant ñu nangoo wax démocratie baaxul on a on a on a consulté beaucoup de gens hmm. ba ñu xamal démocratie baaxul démocratie amul ci diine mais ki kii théoriser démocratie sax j'en profite pour saluer Pa Moussa Sow mm-hmm. moom ci boppam idéal démocratie la wax idéal waxul démocratie idéal démocratie parce que xam na ni démocratie boobu mënul mënul sax nekk. Mhm. lu muy xalaat nii la rek. mais mënul nekk ok moo tax tamit ñu dugaat ci combat boobu te c'est un combat qui n'est pas contesté tey koo toogal waxtaan nga ne ko démocratie baaxul su ngeen waxee dina xam ne nii la démocratie n'est pas un bon système depuis si la fi système démocratie bi di nekk. Hmm. est dëkk bi doon apporter lu ñu dara lu dul yàq suñu jikko yi. Euh, euh, Imam Ndaw mu ngi koy wax la fois passée. Mm. mu ni franc-maçon yi seen premier objectif moo nekkoon la dislocation de la famille. Mm. quand la famille est disloquée jikko yi yàqu nañ xale yi amatuñu yar lu ñu neex ñu def ci mbedd bi. Mm. moo tax fi mu toll nii soo ubbee bopp kenn lijjantiwul kenn. bien sûr mais loolu loolu mooy pauvreté. mais peu mais richesse nekkul ay immeuble ak ay tele ay ay immeuble ak ay oto ak ay télé déedéet du loolu pauvreté mooy yow amoo benn benn valeur ci yow en tant que humain. ak yàlla ñun ok te loolu ay système démocratie moo ko fi indi ay système mondialisation moo ko fi indi le fait que ñu gëmloo ñu ni le monde est un village planétaire loolu moo ko fi indi. donc su fekkoon bàyyi nañ ñu ak suñu dignité yi ñun on va se sentir plus fier quoi comme li Sékou Touré waxoon on préfère la pauvreté dans la dignité que la richesse dans l'esclavage voilà euh, beneen ponk wax nga ko sànq laal euh, Imam Alioune Euh, génn àdduna gis nga nag bi mu génnee àdduna coow li bari na euh, ba am na sax ñu si jot euh, jàpp tëj leen bala ñuy ñëw si Abdou Karim Gueye ak professeur Cheikh Oumar Diagne bi ñu jàpp par rapport déclaration bu ñu def ci désu imam Alioune Badara ndaw déjà yow naka nga gisee décès bi. waa di profito di jaale. di jaale waat famille am d'abord. Mm-hmm. Ablaye Ndao ñoom Mohamed Ndao doom ji. et cetera mais di jaale sénégalais yëpp parce que imam Ndao moom imam est devenu imam Sénégal yëpp. Mhm. am na ay temps moom soo nee imam rek ñu bëri xel yu bëri ci imaam Ndao lay dem. Mhm. te loolu lu am solo la. donc di leen jaale eh, di leen wax ni yàlla na yàlla dooleel leen kattanal leen ba ngeen ba ñu produire. ay centaine de imam Ndao mhm. dans l'avenir pour ñu mën a continuer lu combat de imam Alioune Badara ndaw parce que imam Ndao il a les consciences il a réveillé Imam Ndao non il a il révolutionné la fonction de l'imam au Sénégal parce que Imam Ndao bi ñu ko un imam révolutionnaire en fait. un imam révolutionnaire mais qui a révolutionné la fonction de mm-hmm. l'imam parce que mm-hmm. parce que bu njëkk imam yi ci minbar bi lañ ñamoon. Mm-hmm. comprendre nga. wala yow nga seet si leen seen kër toog laaj leen ñu wax la li ñu lay wax pare si mais Imam Ndao dafa xam ni l'imam l'imam au-delà de ça imaam day investir sir sur sur la question. Euh, di gëstu waaw sur la question politique. Mhm. xam nga sur la gestion de la cité yooyu yëpp daf ci ba pare imaam dafa war a. dafa war a gëstu ba comprendre liy jóge ci biti à l'Occident di dugg ci si réew bi lan ak lan la lan lañ ci war a bloquer ak lan lañ war a bàyyi mu ñëw imaam loolu la doon doxal bi mu demee nag ba ay études am wan ko ni la laïcité bi ñu fi indi. Mm-hmm. laïcité boobu bokk na ci la mère des de la médiocrité la mère bi ñu war a ñëw détruire les val mm-hmm. détruire les valeurs. Mm-hmm. ainsi que la république laïcité religion la ci boppam. ok laïcité religion ko moom. ok la boo xam ne day ñëw. su fekkoon un simple religion buy ñëw di dox mission am garaawul mais mission mooy détruire les autres religions révélées. fexe ba comme li Senghor waxoon rek je ferai des de mauvais musulmans. comprendre nga. Mhm. mais je peux pas faire de de non musulman loolu mooy laïcité. Mhm. day ñëw dugg ci sa biir gëm loola boppam yow musulman bi nga gëm laïcité ba pare bëgg a gëm diine te ñaar yooyu kenn mënu leen. gëmandoo mhm. ok loolu la ñu loolu la ñu imaam jàngal te débat noonu. bi ñu jàppee imaam Alioune Badara Ndao la débat bi réveillé yow. Mhm. nit ñu xoolaat internet bi gis ni ndekete. imaam bi dañuy wax ni daal le Sénégal est un pays maanaam jàpp nañ ni euh, catholique yi ñu ngi dund seen diine jullit yi noonu juif yi noonu ñi gëmmu dara maanaam ku nekk daal nangul nañ ko gëm-gëmam. Mhm. ñuy dund euh, ku nekk di dund sa diine si jàmm ci biir société bi ñu bëri euh, maanaam analyse boobu wala impression boobu la ñu am si le mhm. Sénégal est un pays laïque alors que la laïcité c'est tout autre chose. en piège bi mooy laïcité su ñëwee. Mhm. mën na la bàyyi ak sa diine. Mhm. mais fexe ba nga gëm ko. Mhm. léegi beneen bi nag laïcité dafa ànd ak force ak pouvoir. parce que laïcité moo ngemb république. te république moom la gestion moo yor la gestion de la cité. république moom mooy signer loi yi république mooy wax lépp liy dox liy doxal dëkk bi. te république boobu mook laïcité ñoom ñoo bokk ndey ak baay. la yow beneen diine bi nga gëm nga gëm diine musulman wala catholique diine boobu moom ah lam la wax rek daf caa yem rek. Mm-hmm. mais amul benn pouvoir bu muy ñëw tegaat ko ci sa kaw. Mm-hmm. parce que charia ñu ni du fi duñ ko fi appliquer. Mm-hmm. kon ñoom amul benn pouvoir physique bu mu lay teg sa kaw te laïcité day am pouvoir physique boo xam day ñëw teg ko sa kaw. est-ce que yaa ngi comprendre kon laïcité boobu daf ko leer ni su ñëwee ba bokk ak yow sa diine bi rek moom day gañe diine bi parce que moom day indi ngëm-ngëmam ba pare indi dooleem léegi nag Imam Ndao loolu la réveillé si ñun. léegi nag bi ñu demee ba France gis ni ah imam bii kat mu ngi commencé di sensibiliser nit ñi. ci suñu te tu te tu France dañoo gëm république ak laïcité mooy mm. seen àdduna. Mm. jaral na leen rey ay doomu aadama. si la ñu fexe ba fexeel imam Alioune Badara Ndao rek fexeel ko tëj ko mais malheureusement ndekete dañ koo dimbali. Mm. niñ ko dimbalee mooy imam daf ko wax. daf ko wax mu ni man mission bii sama mission bii li gën a ndaw ci li ma jaral mooy sama bakkan. comprends nga. Mhm. kon mission mooy lan. mooy na laa ci teg mission bi kon mooy na véhiculer information bi l' information de Dieu. Mhm. na ko jàllale. na jàllale information bi nga xamante ni nii mooy ñëw nekk piège piège bi ñëw di dal suñu kaw di détruire suñu valeur yi sans pour ñu bàyyi ci xel mais loolu imam moo ko éveillé ci conscience bi kon gars yi nag bi ñu ko jàppee tëj ko. si la ñu gën a propulser ñun ñu dugg si combat bi nitu dëgg si la ñu gën a propulser nag la message de imaam mm-hmm. ñu topp si combat bi on parle partout de imam on parle partout de son message on parle partout de son combat combat bi di gën a yaatu di gën a yaatu yàlla def bi ñu demee ba yàlla mayaat ñu ndam mm-hmm. ba ñu setal imaam ñu ni ko yow dañ laa tooñoon defoo dara sénégalais yi nag màbb ñu ni ah li nitu dëgg doon wax dëgg la sénégalais yëpp màbb ñëpp bëgg imaa ñëpp déglu imam ñëpp jox ko nopp moo tax message bi jàll na fi mu toll ni France mënatu si dara le Sénégal est un contre la qui qui combat la République le Sénégal est un pays maintenant qui combat la laïcité te combat boobu on l'a gagné sur le plan de la population d'une manière populaire on a gagné sa combat léegi nag si si côté institution yi ñoo des ci institution yi la ñu war a dem ba daaneel république bi daaneel laïcité bi ci institution bi te incha allah dinañ ci egg. ah ak su fi Macky Sall jógee. Hmm. keneen keneen kan benn Sonko su ñëwee. waaw il va faire il va il va il va forcément pas euh, <clears throat> Sonko. Sonko nan la mën a changé mbir moom. non il va non Sonko Sonko est un homme de valeur. valeur nitu diine la. non xam nga il n'est pas un, un homme mais il est un de valeur. forcément il va poser des actes. des actes yoo xam ne nii. Mm-hmm. ay kii moo ko fi indi woon république moo ko fi indi woon imposé ñu ko mu rocc si ñaar wala ñett wala ñeent. Sonko mi ne wax dañuy xeex système léegi mu ànd ak waa système bi. waa xam nga di politique di wuti poste. lool loolu côté politique la. Ah, ñun loolu d' accord ñu ci non non si d' accord parce que déjà yow valeur ngeen wax nitu dëgg valeur déjà kay valeur boo koy defaan fii ci Sénégal li ñu njëkk xam ci valeur mooy kàddu. nit ah, kàddoom ah. diine sax loolu la wax. d' accord maanaam ku dul wax dëgg bokkoo ci diine ak l'islam loolu la njëkk a wax maanaam mhm. sa jëf sa wax nan ko jëfee mhm. mais on a vu Sonko ah, la mu waxoon si début bi di clash politique yi di leen xas ne président yi fi nekkoon quatre présidents yëpp euh, de Senghor à Macky ñoom ñëpp la ñu fusillé ñooy système bi ñoo yàq réew mi tey jii gis nañ ni ñooñu lay àndal pour am ay poste maire pour am ay post député te fas yéene ànd ak ñoom pour dugg ci pale bi kooku ngeen xaar ni yow bis coppite yi ngay wax. waaw xam boobu côté politique la te ñun joxe joxe nañ. suñu mais mais c'est un homme politique. waaw d'accord. nañ on n'est pas d'accord avec ça. ko Sonko buy ñëw di xeex système di collaborer ak Sall. waaw ak waa système bi wala muy collaborer ak Barthélémy Dias wala Aïda Mbodj wala Malick Gakou wala. kii que ce soit ñun Sonko buy wax fu mu waa système bi lay lay lay jàkkaar. waaw bu xoolee droite gis waa système gauche waa système si kanam waa système si ginnaaw waa système. malheureusement te moom. li tax sax jeunes yi njëkk ko topp moom mooy ne dafay combattre euh, système boobu parce que système boobu moo yàq réew mi mais kooku naka ngay xaaree tamit Oumar Sarr si moom changement. ok léegi léegi li nga wax ni dama la si rejoindre parfaitement donc imagine toi. kon wow. imagine dëgg demoon rejoindre Sonko. ba tey Sonko dugal ko ci dugal ko ci système boobu noonu. comment mm. il va faire maintenant. moo tax loolu moo ñuy joxaat dëgg si ñun ñun lu fait que ñu waaw ñu ñu retiré wu bu baax ci politiciens yi toog suñu toog gëm li ñu gëm nekk ci si lu ñu nekk xëccoowuñu popular popularité xëccoowuñu nangam nangam mais suñu valeur suñu ay principe ci la ñu bëgg a léegi yow tey jii nga bëgg ni maanaam li ngeen bëgg coppite yi ngeen bëgg loolu laa la may la mën naka la Sonko su ñëwee incha allah ci li ma gëm gàtt gàtt dina am quelque kii yu mu kii par exemple Macky Sall dafa dafa voté mm-hmm. référendum mu ni euh, la laïcité nañ ko nañ ko voté mu nekk caractère intangible loo xam ne kenn du ko laalati abadan mhm. peut-être Sonko mën na ñëw dindi dindi vote boobu homosexualité Macky Sall du voté du ko voté parce que ñun dañoo def mouvement bu rëy boole ci xalif yëpp dugal dugal dugal dossier bi. Ah, oh, dugal pour loi contre l'homosexualité am na réew mi de. non amu fi de. loi contre homosexualité amu dafa mel ni ba léegi foofu la taxaw de tànk maa ngi ci réew mi. Ah. Euh, kenn du fi daganal góor jigéen. kenn du fi gisaguñ ko mu daganal ko de. nañ góor jigéen Sénégal ndax yéen waa presse. Mhm. ah Macky dafa voté wu ci code de la presse bi article dix huit. Mhm. leen droit di wax ci homosexualité yi di leen di leen def ci ñoom discrimination. ah man de chaque ngi siy waaw mais dafa parce que dafa appliquer dafa ñemeegul appliquer loi bi mais loi nañ ko au contraire kon voté na loi buy jox le champ libre les homosexuels voté na loi yi leen koy jox. Mm. comprendre nga mm-hmm. mais xam nga day moom day jouer ak nit ñi quoi parce que il utilise souvent l'ignorance des sénégalais xam nga ba pare y a beaucoup de corrompus am na ñoo xam ne nii sax du ñu gëm Macky Sall gëmuñu li muy wax mais Macky day ñëw jox leen. xaalis ñu ok c'est ça. est-ce que yow léegi d'accord nga euh, Abdou Karim Gueye ak euh, Cheikh Oumar Diagne li ñu wax bañ tëye leen ci kaso bi. waaw donc ñoom ñaar bokkuñu li ñu wax man ci li ma analyser mm. li ma analyser en tout cas si tënk daal ñoom jàpp nañ ni faatuk imam Alioune Badara Ndao c'est lié au président. loolu moom lañ leen tëyee gis nga Karim Karim mën naa ko maa ngi koy masawu foofu mu nekk ak Cheikh Omar Diagne di wax Macky Sall na leen libéré tamit parce que tooñ la. Mm. man Karim li mu wax am naa ci loo xam ni nii mën naa ci d'accord ak moom soo defee une analyse profonde. Mm-hmm. parce que li ma wax dañuy euh, faatum imam Ndao Macky Sall génn ci loolu la Karim su fekkee ni dañoo jàpp ni système bi. Hmm. tey bokk na si li faat Imaam Ndao parce que système boobu noonu moom moo incarcéré Imaam Ndao Imaam Ndao bi mu génnee mbir li mu doon dund foofu yëpp moo ko nettalil boppam. Hmm. te loolu noonu bépp sénégalais bu analyser di nga xam ne nii ki la def lii daf la daf la infliger benn mort lente comprendre nga te Macky Sall ci système boobu la bokk. Hmm. kon c'est soo analyser. ñooy faatu te dugguñ ci kaso bi. wala ñaata nit ñoo ñooy ñoo dugg ci kaso bi kenn xamu leen sax ñu jógee fa faatu. wala ñu jógee fa jëlee fa wéradi. wala ñu faatu fa te kenn du ci wax. d'accord mais pourquoi pas euh, pourquoi rek euh, forcement Imam Ndao dugg na ci kaso bi génn na il y a quelques années euh, feebar na faatu na ñu bëgg a jël mbir mi teg ko ci ndoddu état. mais xam nga nit xam nga su la tëjee kaso. Mhm. ngay dugg ci kaso bi ànd ak wér yaram soo ko tëj soo ko tëjee kaso rek yow ay responsabilités yow yaa ko yor. su génnee ak feebar yow kon sa loxo génnul ci feebar bi on est d'accord parce que yow yaa ko tëj ci néeg bi. Mm. ba mu jëlee fa feebar. kon yow te yow yow yaa nekkoon responsable bi ko dugal ci néeg bi kon que yow sa loxo génnul ci loolu génnul ci feebar bi et cetera donc suñ defee une analyse profonde man damay jox dëgg Karim ci li mu wax mais d'une manière direct loo xam ne nii ay preuve la du mën a am preuve palpable yuy wane ni moom loxoom. ci maanaam daa yow d'accord ngeen ne wéradi gi imaam ci kaso bi la ko. ci kaso bi la ko jëlee te wéradi bi bokk na ci li ko fi jëlee. mën nañu wax loolu donc kon ñi ko dugal ci kaso bi système bi ko dugal après jéem nga approché sa sa famille wax ak ñoom si circonstance su décès Imam Ndao parce am na ñuy indi sax ay version Imam Ndao euh, jaana ko matt peut-être ainsi de suite waaw yooyu moom wax ji moom information yi ñoom bëri nañ si mais ñun ñun yi ñu si doy rek te ñu mën ko analyser yooyu rek la ñuy analyser parce que jour. wala li leen arrangé rek ngeen di analyser. non non non non parce que dafa am yoo xamante ni soo ci bëggee analyser. Mhm. da ngay dugg ci ay incertitudes da dugg ci loo xamante ni nii yow mënoo ci am preuve. parce que ñii ni jinax matt na ko ñii jaan matt na ko ñii ni nangam jaan matt la nga toog plus de dix jours quinze jours te deewoo doo ko dee xam yooyu yëpp dafa xaw kii mais ñun duñu ñu sori ci genre affaire yi noonu yëpp. Mhm. mais li wérte wóor mooy li Karim wax man loolu laa ci mën a wax mais Macky Sall moo war a am grandeur. xam ni ku boot bukki xaj bëw la mënul jiite nit ñi te kenn du ko wax dara lool mënul nekk. yéen lu tax defoo leen dara pour ñu libérer Karim Gueye ak Cheikh Oumar Diagne. donc defu ñu dara waa d' accord comme li ma wax nii wax naa nañ ko libérer ça c' est un action euh, loolu action la gars yi ñu ngi koy wax de part de part Cheikh Fall da koy wax. Euh, kii organiser marche wala dara. Euh, def solidarité parce que Karim si yéen la bokkoon avant muy génn. waaw surtout Cheikh Oumar bu fekkente ni àndoo leen carrément am na combat yu mu ngi koy mëne mhm. yéen tamit da ngeen koy mëne lan moo tere kon euh, nitu dëgg organiser euh, benn sitting organiser benn marche euh, pour la libération de Cheikh Oumar Diagne wala Karim Gueye macha allah loolu am solo la gars yi ñu ngi lay dégg mhm. xam naa ni dinañ si peut-être su keneen jëlee initiative peut-être ñu rejoindre nitu dëgg bi mouvement la mhm. lu ñuy waxtaanee la mais de toute façon ñun on compatit ba pare dañuy wax Macky na libéré ñoon Cheikh Oumar Diagne nag li mu wax ci lañ gën a war a waxtaanee parce que waxul sax waxu Macky Sall moom waxu Yasser Arafat la wax bañ ko yóbbee euh, kii euh, hôpital na mu fa deewee genre yooyu wax ci système bi. Mm-hmm. wax ci système international bi de il parle de l'Occident de. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. ni ñu éliminer yenn adversaires yi contre leur. Euh, la leur refus et tout nañ dugal leen ci kaso bi génne leen. a de ça li loolu lu ci yoonu Macky Sall lu ci yoonu Macky Sall ba mu koy tëjlu te Cheikh Omar waxul waxi Macky Sall donc kon li xew ci réew bi mooy jaay doole bi Macky Sall di jaay doole. campagne de campagne de d'élimination wala campagne d'intimidation bi muy def contre képp ku taxaw wax lu la arrangé wu la war a arrêté le problème mooy il utilise les institutions de l'État les institutions judiciaires moo tax système judiciaire bi il faut ñu réformer ko procureur waratul mën a am droit di mm. jot ay ndigal ci ministère de la justice ministère de la justice jot ndigal ci Macky Sall rek ñu xool ku ko neex rek jàpp la tëj la mettre la en ñu doog laa indi tribunal pour ñu juger la juger la libéré la ñoom am nañ li ñu bëggoon parce que toroxal nañ la defal nañ la nangam comme ni ñu mm. defoon. mais tamit parfois mais loolu dafa a jeex. Umar est-ce waxtaan wax dëgg ca la dañu gis ni ñu si bëri ci activiste yeeg euh, seen seen genre yi dañuy wax ay wax rek mais duñ ko teg fu wóor maanaam buñ bu ñu waxee mbir sax nekk ci Facebook bi di wax am ay vues ainsi de suite live bi nit ñi di leen suivre tey jii. Euh, bu leen procureur woowee sax wala bu leen justice woowee ne leen waaw yow euh, diw yaa wax li ak li indi si preuve dañuy am hmm. problème. Ah, mais tamit loolu est-ce que. Euh, yenn yi soo demee ba ko yëkkati waroo am preuve yu palpable yoo xam ne da ngay teg nga xam ne ñu la woowee sax di nga am foo ko teg mais Abdou Karim Gueye tey jii buñ ko woowoon li nga wax rek lay wax. Ah. wéradi bi imaam ci kaso bi la ko jëlee. mais amul benn preuve pour wane ne. mais loolu raison la waaw loolu mu wax la. raison la moo ko tëjlu. Mhm. moo ko tëjlu lii moo ko tëjlu. xam nga en en en kii su en temps normal waru ko woon tëjloo. parce que est ce que tamit jarul yenn wax yi tamit bala ngeen koy wax ngeen am si ay preuve non ñun moom ñun mouvement nitu dëgg. ñun moom rarement wala mosoo ñu dégg ci genre affaire yi demee noonu parce que am na yu bëri yoo xam ne nit ñi dañ koy def. Mhm. pour quête de mais dans le ak Cheikh Omar Diagne c' différent. c' différent bokkul parce que li mu wax noonu analyse la xam nga euh, ba pale ni ko waaw waxu Imam Ndao ci la Macky def ay révélation loolu mooy wane ni moom il est directement impliqué dans la dans la l'incarcération de Imam Alioune Badara Ndao donc kon moom mën nañ ni moo ko tëjlu te bi mu génnee feebar la génnaale imam bi mu génnee moom wax na ñëpp ni man wéeru ma sama yaram wéerul mais da doon forcer parce que doon daf bëggoon continuer combat bi hmm. foo ko woo mu wuyu la ñun bi ñu koy ñun bi ñu koy woo conférence bi mu génnee imam bi mu génnee euh, ci première weeru ko dañ ko woo conférence religieuse fii hmm. dafa forcer ñëw quitté Kaolack ñëw. quitté Kaolack ñëw dafa forcé ñëw ñu joxoon ko benn thème bu am solo ñu ni ko quel est quel est l' avenir du Sénégal devant l' influence occidentale maanaam influence bi ñu occidentaux yi di lan moo mais mu wax ci ay wax yu yaatu expliqué ci lu leer léegi loolu la. loolu la Macky Sall bëggoon mag kii arrêté ko Macron sax laa wax loolu la bëggoon imam arrêté ko. Mm. moo tax imam dafa forcé pour ñëw pour continuer di délivrer message bi mais wérul woon. donc kon tey suñu waxee loolu donc Macky na am esprit de dépassement na bàyyi ñi muy intimider euh, Papito Kara mm -hmm. Ousmane et cetera ak les jeunes de Pastef yi ñu jàppoon di leen jiiñ ay force spéciale ak ay nangam na arrêté loolu moom bu waree jóge ci réew bi kenn du ko teree jóge ci réew bi te li muy def nii day guddal jël parce que mënul nekk éternellement ci bopp réew mi c'est impossible donc na jéem a xool nu muy rafetalee mbir bi. pour mhm. pouvoir sortir avec la grande porte. parce que moom day génn moom on en a <laughs> beneen ponk bu soxal actualité bi di dund gu cher gi euh, actuellement Oumar Sarr ñu gis ni prix yi ni ñu yokkee sax dafa daal di jéggi dayoo euh, man dama naan sénégalais yi est-ce que dinañ mën a continuer di ko euh, dékku wala sax est-ce que mënati nañ ko dékku parce que léegi euh, pour nga am ceebu jën national bi rek nga xam ni euh, sénégalais lambda bi su amoon 2000 francs dem nduggi ñëw taal euh, jox njabootam lekk léegi ceebu jën national boobu dafa nekk benn luxe pour sénégalais bi. tellement que la euh, dund gi dafa yokk naka nga gisee mbir mi dégg guñ leen ngeen wax si yéen. waaw lu doy waar la nag li ci gën a mooy état bi day jéem a taafantaloo. Mhm. Euh, Covid wala muy taafantaloo la guerre en Ukraine. Mhm. alors que lan moo tax mënul woon a wax train de vie de l'état nañ ko kase complètement mhm. te ñun ñëpp Sénégal xam nañ ni état bi seen train de vie c'est trop élevé da ngay gis ministre boo xam ne doomam dafa war di jàngi rek benn 4-4 quatre quatre gouvernement bi. Mm-hmm. moo koy yóbbu aller retour nekk à sa disponibilité. Mm-hmm. te boo moytuwul sax quatre quatre bi ab gendarme lañ ciy def wala ab militaire. Mm-hmm. boo xam ne ñun ñoo koy fay saleer sans compter carburant bi sans compter oto bi dépannage oto bi entretien oto bi yooyu yëpp pour benn benn doomu agent du gouvernement buy jàngi. pendant des années. loolu rek moo tax nit ñu bëri comprendre sax. train de vie ni mu yaatoo lan moo tax muy ñoom seen train de vie di gën a yokk askan wi di gën a sonn waaw parce que bëgguñu ñu faalewuñ ñu gëmuñu ñu xoolal seen bakkan seen bakkan moo leen dugal ci mbir bi seen bakkan du seen aqulaay taala liggéey lu ñu yàlla ci li ñu nekk nii alors que état. te si li ngay wax sax on a vu que législature bi génn treizième législature bi nee na woto yi nga xam ne ñoom lañ leen joxoon dañ leen koy may ñu yóbbaale ko maanaam dañuy génne euh, budget bu bees jënd oto yu bees tàq jox ko député yu bees yi. waaw parce que si réew mu nekk si crise nga xam ne nit ñi pour ñu añ añ bu normal c'est un problème. la législative bi moom moo fa amoon xaw ma cent ñaata député mhm. cent ñaata député su fekkee dafa retirer les les voitures nangam député yooyu ñu amoon dootuñu am oto mhm. te ñooñu noonu bëgg na bàyyi leen ak seen oto pour kon loolu moo lay wan ni moom Macky faalewul askan bi yërëmul askan bi yërëmul askan bi léegi man ñii ànd ak Macky di ko politigal di ko jéem a laa xamul benn genre nit lañu man ñooñu laa mënul comprendre te ñoom ñu ngi gis quoi. li askan wi di dund. ñu ngi gis léegi nag Sénégal kon dafa toll fu fu fu garaaw fi mu toll mooy bopp sa bopp naa xool ba nu ma lijjantee sama bopp. léegi kuy wax ñu jàpp ni kii li muy wax dëgg la. fekk boppam lay lijjanti ah, waaw léegi. noo dem nañ ba képp kuy wax comme benn omarsal benn Cheikh Fall wala mm-hmm. benn benn Pa Moussa Sow tey su doon wax di wax dëggam. ñu ni kii c'est un frustré que dafa amut dafa jotul wàllam ci nag bi waaw Omar Sarr mii wax ju bëri ji buñ ko joxoon benn poste léegi mu ne tekk lool la ko dégg léegi moo tax il faut activistes yi chercher leur indépendance indépendance ni nga koy chercher mooy yow nga nga nga fàggu ji lu jëm ci sa bopp nga fàggu ji ko feneen mhm. ba pare nga xam ne da ngay am indépendant wax lu la neex te doo jaar ci bureau wu kenn kenn du la woo nga ni ko envoyé ma crédit wala envoyé ma Wave su ñu amee suñu indépendance foofu la combat bi di gën a dëgëree mais tant que ñun activistes yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy teg ci popularité teg ko ci ku la neex xaalis teg ko ci nangam combat bi du avancé. Mm. parce que ñi lay jox xaalis sax dañuy bàyyi xel ne yow mi yaa ngi wax rek mais li nga gëmoo ci dara. waaw mais léegi dundu gu cher gi lu tax dégguñ leen si ngeen marche man sax question bi may poser <laughs> la grande question. mooy euh, Ousmane Sonko par exemple gis nañ ko fi mu organiser concert de casserole tëgg fi tëggam yu neex mais. Euh, pourquoi pas sax un concert de casserole pour sénégalais wax ni ñun waxuma sax amatuñ luñ jëndee dañoo xiif man maintenant lan mhm. moo tax yéen activistes yi organiser wu leen marché pour wax si loolu euh, lan moo tax politiciens yi opposants yi ñoom question bi sax ñoom laa koy laaj organiser wuñ marché pour uniquement waxuma ay affaire troisième mandat de uniquement pour la cherté de la vie ñu xam ni sax ñii ñi ngi fi nekkal askan wi. ok très ouais. important ay troisième mandat ay Macky dégage maanaam dund gi dafa cher nañ ko wàññi askan wi sonn nañu. xoolal soo interroger histoire. waaw ñun 2019 ñun nitu dëgg. Mhm. mouvement nitu dëgg. 2019 la ñu njëkk a organiser sitting fii place de l'obélisque mhm. pour xeex dund gu cher gi. imagine 2019 <clears throat> mooy jamono ji nga xam ne nii Macky Sall dafa xëy benn jour rek yokk douane bi yokk douane bi rek lépp yokk. conteneur yi yokk hmm. marchandise yi commencé yokku ceeb diwlin et cetera et cetera ñun nitu dëgg ku xool suñu page Facebook di nga ci gis suñu sitting ba ñu def hmm. jour sax da doon taw y avait quelques suñu membres yi ñoo fa nekkoon xam lu tax parce que ñun fii souvent mouvement populaire yu nganda ngand yi ñi koy organiser muy réussir ñu si ëpp mouvement bi day laal politique hmm. day laal ay intérêt benn politicien politicien boobu mobiliser ay nitam ñu ñëw fekk si ko te ñun dañoo bëgg liggéey en indépendance dañu bëgg suñu organiser suñu marche mu nekk marche bu impartial marche boo xam ne nii xoolal population bi rek la amul benn politicien bu ci léegi yéen loolu lu ma ne maa ngi la 2019 nañ ko mais nii nii nii actuellement li ñuy dund dund ko 2019 waaw 2022 nii li ñuy dund waaw mais euh, dunduñ ko kii 2019. d' accord naa ak li wax juste pour wax la ni. waaw ñun ñu ngi ci combat boobu parce que depuis 2019 organiser nañ loolu mais mënuñu chaque jour ñu organiser marche souvent on fait des communications souvent ñu def ay waxtaan ay sensibilisation mais gars yi ñu ngi lay dégg dinañ réunion suñu réunion su ko jaree ñu defaat ko. Mm. su ko jarul tamit on continue notre combat parce que ñun suñu combat dëgg dëgg dëgg du lii kese de. Mm. du ay dund gu seer ak ay dëkk bu développé wul déedéet suñu combat dëgg dëgg mooy la restauration des valeurs. mooy la défense des valeurs de l'islam mais balaa ngaa tal valeur tal lekk. waaw loolu waaw si la bokk mais <laughs> mais nekkul suñu première combat. Mhm. xam nga tax parce que Macky Sall coow li dafa bëri rek waaye xoolal sàkkuñu sàkkul suñu gémmiñ ñi te mënul tere yàlla dugal ci dara par exemple tey Ousmane Sonko bu organiser woon marche. pour wax uniquement man loolu dama ko koy suggérer en fait man maa nga koy suggérer à travers la euh, l'antenne euh, tey jii mu organiser marche du si wax waxi troisième mandat parce que su tuddee waxi kii rek maanaam euh, mbirum politique la maanaam marche bi c'est uniquement pour cherté de la vie mhm. inflation ñu trouver ci solution tey bu fekkoon euh, Sonko dafa woote loolu est-ce que yow di nga ci dem waaw uniquement man naa am ma dem si pas mu rax ci mbirum politique man naa am ma dem si mais même bu ma si demul waa membre mouvement Nittu Dëgg bi dinañ ci dem mhm. mais xam nga luy problème bi gis nga marché yooyu ñoom suñ ko organiser ba nit ñi ñëw du ñu yem ci objectif u marché bi mhm. il faut ñu wax au lieu ñu wax ci dundu gu seer gi lii lii lii <clears throat> loolu la ñuy wax wala ñoom nan la ñuy def ba jëlee fi ñëleen i teg leen fi te ñun bokkuñu ci com ñun bokkuñu ci yooyu bokkuñu ci jële fi politicien bi installé fi politicien bi ñun bokkuñu ci combat bi dañoo bëgg politicien bu fiy ñëwaat man Sonko je préfère je préfère moom mu nekk le pro le prochain président de la République. Mm-hmm. te élection su nekkoon tey tey tey tey je vais voter pour Sonko am naa si moom yaakaar mais dama bëgg a rester impartial ba nga xam ni su ñëwee su defee lu mu warul def ma mën a am la liberté de dire ce que je dire. léegi euh, ñu laaj la si gouvernement bu bees bi temps bi pratiquement jeex na juste deux minutes trois minutes Euh, Amadou Ba moo nekk actuellement premier ministre am na trent 38 ministre tàmbale nañ passation de service bi lundi ba tey ji samedi euh, ci ay waxam nee na ni ngi ni euh, lundi prochain ñu sóobu si liggéey bi ngir taxaw ci dund bu cher gi Amadou Ba moo ko wax ngir taxaw ci location bu cher bi facture courant yu ndox yu cher yi ainsi de suite en tout cas mu nekk défi yi njëkk si li nga xamante ni war na ko relever yow am nga yaakaar si Amadou Ba ci temps bu ndaw bi juste ay quinze mois euh, mu mën a def réalisation yooyu. aw ma benn yaakaar ci Amadou Ba muy Amadou Ba muy Macky Sall muy Mimi Touré ku mën a doon aw ma ci ñoom yaakaar xam nga lu tax parce que li njëkk si bëgg sa réew li njëkk si def politique mooy nga def don de choix. Mhm. Amadou Ba milliards yi ñu koy jiiñ est-ce que pare na pour rocc ko. dugal ko ci askan bi <coughs> su fekkee bëgg na askan bi. Mm. milliards yi ñu koy jiiñ man gis naa benn vidéo. Mhm. ñu ni euh, amado Ba moo moom kër gi. kër gi waaw ma gis ko ci kër gi. mais kër googu moom <clears throat> waaw moom est-ce que su fekkee bëgg na réew bi est-ce pare na pour jaay kër googu par exemple benn cinq milliards wala sept milliards dugal ko ci askan bi subventionné si ceeb bi du ko def du ko def. parce que xamuñu seen politique don de soi bokku si. Hmm. ñoom seen politique projet bu génn sax au contraire ñu ngi xool lan lañ ciy rocc ñoom pour gën a dooli seen alal kon kooku mënuma am ci moom benn yaakaar man ci ki ma mën a am yaakaar mooy kii politique. ànd si ak désintéressement mm. ànd si ak désintérêt c'est très important mm. soxlaa lu ma leen dara mm. parce que am na mag ñu koy wax ah, am na mag ñu koy wax ni ñu ni soo nekkee kilifa si biir kër loo am bokkal ak sa waa njaboot sa njaboot lu ñu am bàyyi leen bàyyi bàyyi kook ñoom loolu mooy kilifa est-ce loolu am na fii loolu amu fi moo tax ku mel ni Sonko wax dëgg fa yàlla jàmbaar la parce que bi mu nekkee impôt domaine su fekkoon defoon na ay luubal foofu noonu kon ba tey tëj nañ ko si kaso bi ba tey kon tëj nañ ko ci kaso bi kon mën nañ mën nañu wax ni d'une ah, part mën na luubal te kenn du ko gis de parce ci système bi la bokk waaw mais en tout cas visiblement li ñu jot a gis ah. nii mooy loolu ah, visiblement nga wax nag waaw li ñu jot a gis visiblement Oumar Sarr visiblement li ñu jot a gis mën na def li muy def ci système bi la bokk xarañ na ci te du wëcc trace ça c'est possible li ñu jot a gis loolu la mais mais pour revenir si gouvernement bi déjà composition gouvernement bi soo xoolee am na si yoo xam ne amul sens. ministre auprès du ministre waaw non ba pare Malick Sall moom moo ñëwoon ñu jëlee fi euh, Ismaïla Madior indiwaat Ismaïla Madior waaw indiwaat te mu fi nekkee ñun ñëpp ñaawlu woon nañ taxawaayam man am naa ay xarit yoo xam ne Ismaïla Madior moo leen jàngal fac droit. Mm. mais dañ ni ma Omar man je reconnais plus mon professeur. mon kooku kooku lañ fi indiwaat. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur la nekkoon ñu dàqoon ko. lan moo taxoon ñu dàq ko kenn xamul. Mm. ah ñu dàq ko mu dem retraite ñu jékki indiwaat ko. Mm. te Aly Ngouille Ndiaye lan la fi taxaw wa dinaa def lépp lu ma mën a def pour Macky Sall falu est-ce que su fekkee ni il continue à tenir ce discours là loolu trahison la il n'est pas un ministre de Macky il est un ministre de la République du Sénégal. kon yow gis nga ni gouvernement bi ñu teg euh, dañuy préparer troisième candidature bu Macky Sall wala dañuy euh, préparer candidature bu Amadou Ba en 2024. li ma xaw gën a yaakaar nag mooy dañuy préparer bu Amadou Ba. bu Amadou Ba parce que Macky moom doful. ba ni day jéem a doon deux troisième candidat kii ba pare Macky Sall su bëggoon defaat candidat du indi Amadou Ba teg ko premier ministre parce que Amadou Ba n'est pas un subordonnat parfait de Macky Sall. Mm-hmm. Amadou Ba moom ci li ñu liir. dafa dafa am ay am na ay ambition ba pare bañkat la day bañ. comprendre nga kon li ma gën a jàpp mooy day préparer candidature Amadou Ba mën nañ ko préparer mais su ma doon ñoom du ma am candidat su ma doon APR. Mm-hmm. su ma doon Benno parce que def nañ fi dix ans dañoo delloo réew mi kanam ginnaaw waaw xaaral rek nag yéen nag li ngeen non xamalu tax Sall amul droit ñu ne waa ngeen bëgg nag ña nekk bennoo ñoom amuñ droit sam sama xalaat la dama ni on est dans dama ni équipe waaw ñoom équipe lañ Macky Sall dafa ànd ak équipe équipe bi mu àndal pendant dix ans mhm. di gérer réew bi équipe bi dañoo échoué mënuñoo jëlaat ci équipe boobu noonu beneen nit di ko jiital alors que équipe bi capitaine bi capitaine ba d'accord naa Oumar sénégalais yi bañ leen a fal mais ñoom am nañ droit poser seen am nañ droit mais dama ni. su ma leen doon conseiller. dama leen di wax ni yéen vous avez échoué dem leen jël seen bagage toog na le ñu xool ñeneen ñu fal leen loolu moo gën a rafet. Mm. loolu moo gën a rafet. yéen ñam ngeen di di douze ans xaaral ñu xool. ñeneen xaaral ñu xool ñeneen lan la ñuy indi moo gën a rafet. xaaral ñu xool Sonko daal. waaw mën nañu xool Sonko parce que man de à part à part ñoom Sonko rek laa fi ah, mais ay Abdourahmane Diouf ay mm. Thierno Alassane Sall. Mm-hmm. ñoo ñëpp ay jàmbaar lañ Pape la mm-hmm. ñoo ñëpp. ñoo ñëpp mën nañ am si ñoom yaakaar pas seulement Sonko mais Sonko moom il est très bien parti moom actuellement. voilà temps bi wala Guy Marius Sagna sax mën nañ ko falan waaw Guy moom jàmbaar la ñu ngi koy nuyu ah, de ah. de passage xam nga activiste yëpp nag man Guy moo si gën a nekk sama xarit <laughs> ah. ayca mi ngi noonu Umar Sarr ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waa di jégalu ci wax ji jaxasoo ji jégalu si ñàkk xam-xam bi jégalu si lépp mhm. jégalu waa mouvement Dëgg yi nga xam ne ñoo ma jox accord pour ma ñëw fii mhm. ci yi jégalu aussi sénégalais yëpp di leen nuyu di leen ziar di leen wax ne ñun Nittu Dëgg moom ñun ñu ngi nii rek waa nekkuñ ci njëkkante bi mhm. nekkuñ ci xëccoo siiw bi nekkuñ ci xëccoo marche bi nekkuñ ci dañoo nekk si benn logique boo xamante ni ñun nekkuñu ci saxal baa ma sulli saxal baa ma sulli ñu nekkuñu si loolu de dañoo nekk si logique di ci avancer ndànk-ndànk xam nañ fi ñu jëm incha allah dinañ fa egg jërëjëf Oumar Sarr bu nitu dëgg ñu ngi koy remercier kon bu baax a baax di remercier suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel euh, chaque samedi 10h jàpp 11h ci Rewmi FM Dakar 97.5 di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ndey Comba Moreau euh, di leen wax ba samedi prochain 10h jàpp 11 ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité.